que part bu gën a rëy ñoom la ñu am espoir bu rëy boo xam ni sa mun naa wax ni si yow lañ ko teg mais question boobu monsieur le président ba Sénégal moomee boppam ba tey ñeenti njiiti réew ñu ngi woon sa ginnaaw mais kenn su ñoom amul saafara bi nga xam ni moom mooy saafara bu définitive tey nga ñëw am espoir ay ndaw fal la est-ce que question boobu noonu xam nga d'abord espoir bi nu mu toll ak itam si ban fànn nga fa yéene jaar pour régler définitivement cette lancinante question si ndaw yooyu ba tey monsieur le président de la république ñu bëri si ñoom dañoo ñàkk seen bakkan si at yi ñu génn malgré tout ce qui s'est passé ñu bëri ñu ngi continuer également di réclamer yoon def liggéeyam si seeni dossier yaa ngi suivre actualité gis nga lu xew ces derniers temps lan nga leen yan état du Sénégal yan disposition tey jii la mun a teg ba nga xam ne au moins suba ku si yeewu di nga xam ne kat yoon am na loo xam ne def na ko seen dossier. d'abord par rapport ak emploi des jeunes. maanaam naka la ñuy def ba ndaw ñi am liggéey identifier secteur yoo xam ne mën na absorber lu bari ci main d'œuvre maanaam des fois nit ñi ne nag amul liggéey fekk ne moom boo ko laajee lan la mën a def formé wuñ ko pour mu def un travail spécifique à part travail liggéey boo xamante ne dooleem rek la ko mën a defee mais ala kuli xaal ki am formation. bëgg liggéey mënul liggéey ak koo xamante ne amul formation wala formation des na ñoom ñaar ñëpp suñu préoccupation la maanaam ñi ñu bàyyi xel la ay leviers yu bëri lañu war a yëkkati bokk na ci ñu xool secteur yoo xamante ne mën na mobiliser ñu bëri bokk na ci agriculture il faut que ñu ñaaxaat nit ñi organiser leen pour ñu bëri ñu mën a béy mën a delluwaat ci mbéy mi te bari na ñoo xamante ne bëgg nañoo béy parce que même ñiy dem ci agri immigration clandestine sans formation souvent sans qualification bu ñu demee foofu ci mbéy la ñuy nekk kon li ñuy béy foofu suuf ak ndox rek moo ko def ak xam-xam goo xamante ne mu ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi mais xëy na il faut que ñu yokk fi nga xamante ne mën nañ faa liggéey y avait des programme ki étaient la malheureusement ki n'ont pas été Euh, concluant ci liñ ci doon xaar pas que programme bi en tant que tel baaxul mais xëy na ci niñ ko yoree la woon boo ngi dégloo ministère de l' agriculture ci fan yii yëpp mu ngi nekk di installer ay coopérative agricole partout pas pour hivernage bi mais pour qu' après ça nit ñi mën a continuer am fu ñu liggéey bu ngeen xoolee ministère de la formation professionnelle mu ngi am di signer ay partenariat yu bari pour ñi nga xamante ne ñu ngi dans l' am formation bu gën a développé wu mën a am produit yu gën a baax mën leen jaay fi génn Sénégal pour mën a gën a màgg mën a gën a employé ñeneen état ci boppam nag conviction bu ñu am du état mooy absorber toute cette demande parce que de vocation état moo tax boo dégloo sama discours 3 avril 2024 li ma ci doon wax mooy dañoo bëgg créer des emplois pour des jeunes sukkandiku ci secteur privé bu am doole parce que état da koy jàppale ndax xam nañu secteur privé boobu mooy mooy mooy mooy créer emplois kon la stratégie c'est à la fois de xool naka lañu leen di former pour que y ait adaptation entre les qualifications ak les besoins du marché côté boobu gouvernement baa ngi ciy def ay jéego yu am solo pour que ñu mën a nekk produit yoo xam ne non seulement entreprise yi fi nekk dañu leen soxla mais entreprise yi ñëw tamit dañ fi mën a implanter parce que xam nañ que mais main d'œuvre qualifiée la mais qu'elle aussi bon marché beneen bi mooy xool les autres secteurs notamment le secteur primaire bu ñu xaw a délaissé xool tamit le secteur secondaire naka lañ koy renforcer parce que secteur tertiaire bi rek muy service yi dafa saturé malheureusement l'essentiel des formation fala la dem donc bu secteur primaire ak secteur secondaire maanaam industrialisation gi demee noonu transformation développé wu bu boobaa dinañ am une plus grande demande de mais d'œuvre pour mën a absorber ndaw ñooñu kon cette stratégie là est en pied d'œuvre te incha allah rabi di ngeen gis ne que dans la vision comme dans les euh, dans le nouveau référentiel dina ci am euh, euh, pàcc gu am solo gu gu gu ndaw ñi jël nañ bu baax a baax baax claire conscience parce que li de la du fait même que ñoom a fal mais daan gis rek ay ndaw ñuy jël bateau wala gaal. di génn réew mi naan dañuy uti ji liggéey ba yenn yi di leen ci fekk loolu waxuma sax nga am responsabilité jiite état mais boo duggee ci boo dëkkee ci dëkkuwaay buy loolu di xewee rek war nga am loola metti te boo taxawee ci fi nga koy saafara évidemment ñàkk conscience c'est pas possible elle seen c'est forte conscience bien avant et une grande responsabilité qui nous incombe boo xamante ne dañ ko nar dañ nar a wàccoog moom incha allah rabbi li ci des nag évidemment peut pour ñoom kese yaa bokk de personnes yoo xamante ne justice bi ñu bëgg amuñu ko woon moo waral man bi ma ñëwee du ne nañ dem dialogue dara xewul li nit ñi xamoon ci jaloog mooy jafe-jafe am na ñii dox dem fii ñii dox dem fii ñi ne nañu ñoom woote woote jaloog jaloog de la dernière chance nañu àndiwaat jàmm nañu waxtaan jàmm am man j'ai dit nañuy waxtaan ci bi jàmm amee pour ay bañ a am nañu waxtaan ci loo xamante ne ñoo ko bokk ça transcende les mandats ça transcende les individus maanaam de question de de de nekkul woon question Senghor nekkul woon question Abdou Diouf nekkul question Abdoulaye Wade nekkul woon question Macky Sall nekkul question Diomaye te du nekk question kuy ñëw question askan wi la buñ ko waxtaanee ñu xam ban justice lañ bëgg a am prise en charge dossier yooyu nag ak seen instruction comme tout ce qui s'est passé autour des rapports xaarul assises yi loolu tamit na leer la mise en œuvre des assises xaarul lay xaaru ko justice sera faite pour tout le monde et pour le future comme pour pour pour ñi nga xamante ne jot na xew mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne dara defi xew ñu ne dara en fait ñu ne duñu xool ndax yoon am na ci wàll wala amu ci wàll maintenant li sénégalais yi war a comprendre mooy du man maay ne yoon defal lii bul def lii pourquoi ma def les assises parce que dama bëgg justice boo xamante ne dafa jël responsabilité am indépendance am di doxal liy cëram ci réew mi ci afia maanaam kenn bañ ko teg pression kenn bañ def intrusion ci fonction pour muy ñàkk indépendance wala leneen loolu moo tax ñu defar assises yi li ci tegu nag mooy justice dafa am tempoom depuis bi ma ñëwee ça fait au moins un mois lañ ma soumettre un projet de de mouvement dans la magistrature comme nu muy amee dans d'autres administrations parce que bu ñu fàtte ben benn affaire on aura beau parler de pouvoir judiciaire les magistrats c'est des fonctionnaires ñu def concours comme man état du Sénégal recruter leen former leen affecter leen di am nag pour di leen bouger parce que kenn mënul nekk fenn de façon statique pendant toute sa carrière ñuy dañuy évoluer en fonction de leur ancienneté de leur grade et des besoins de répartition de ce personnel là ko loolu dara gënu ko naturel mais biñ ma ko joxee depuis un mois maa ngi def samay enquête ànd ci ñi may war a àndal ànd mobiliser ci service état bi yépp pour xam kan mooy kan fan la jaar lan la def pour que les nouveaux visage yi nekk ci yenn postes yi de responsabilité yi nga xamante ne am na ñi fa nekkoon bu ñu egsee ñu ne ah ñii ñëpp a seede nañu ne ñu jub lañu ñu indépendant lañu ñu mën seen liggéey lañ parce que quand l'homme qu'il faut il a à la place qu'il dina def ce qu'il amoon nañu justice am na luñ ci am na lu ci baax am na luñ ci war a defar mais terewul ko ci contexte justice boobu laay ay magistrat defee loo xamante ne sénégalais yu bëri ñu ngi ko doon saluer kon même avec le système existant y a des magistrats yoo xamante ne peuple bi am na leen amel na leen reconnaissance ndax seen taxawaay mais quant nag di xool dossier bi kii nii kii nii il ma jóg fajal ko kii am léegi léegi non c'est pas comme ça que ça marche j'essaie d'avoir des règles objectives et universelles d'application de la loi mu concerne ma concerne la concerne ñeneen mu concerne les victimes d'hier les victimes d'aujourd'hui et les victimes de demain que cette même justice-là se déploie de façon linéaire pour tout le monde mu bañ am ku mu am ndey ak ku mu amul ñu ñuy joxe seen dossier ak ñu ñuy dég dég teg ci conc bi mooy mais loolu dañ koy def dans une certaine sérénité man mënoon naa ñëw rek ne non kii moom ma placé sous mandat de dépôt kii moo doon bañ ci dindi sama sama sama sama sama demande de liberté provisoire kii moo kii lañ joxoon rapport bi mu bañ ko instruire nangam nangam xamee naa leen nañ leen nañ non c'est pas comme ça il y a des règles il y le conseil supérieur de la magistrature qui doit être convoqué qui va statuer et qui va décider de valider les propositions qui ont été faites mais jàpp gëm naa ne du yàggati ndax liggéey bi bu nekkoon cent pour cent fu ñu toll nii def nañ ci lu mat quatre vingt dix pour cent et que dans les prochaines semaines il y de de de des mouvements dans la magistrature et j'espère que ñiy ñëw ils seront aussi prendre à charge parce que on dit c'est pas que par rapport aux jeunes ak li fi xew mais on a des rapports pour lesquels les les recommandations des corps sont sont sont claires ka mu nekk rapport force Covid 19 bi ka mu nekk yeneen rapport yu OFNAC def wala yu CENTIF def sur lesquels y moins de bruit wala lu Cour de comptes def wala lu IGE def wala sax yu inspecteur inspection interne yi def moo tax su may nekk justice sera faite en fait c'est pas spécifiquement pour ces événements la mais dëkk bu amul yoon ci coow lay coow lay dëkk ak ci féewaloo ak ci ma ki yoo xamante ne ñun soxlawuñ ko en fait mais la justice pour finir se rendra dama bëgg qu'elle sa rendre avec la plus grande sérénité que ni ñi xam ne que lii du diw mooy fexe faagaagal diw moo tax mu koy fexel lii mais que yoon moo am ci réew mi te moo nekk di dox. monsieur le président dañuy dellu si waat tuuti ci benn poñ yaa koy tudd léegi muy migration irrégulière ñenn ñi di ko tuddee mbëkk mi ñeneen ñi di wax ne barsa wala Barça muy benn phénomène boo xam ne Sénégal dafa yàgg di jànkonteel ak jafe-jafe boobu ñi la fi jiitu def nañ lu ne. phénomène baa ngi existé ba léegi tey jii yow lan nga fas yéene def loo xam ne ñi fi nekkoon defuñu ko ba phénomène boobu wàññeeku. ça revient à la même question que que que bi sa naataango mi ngi mi ngi mi ngi demandé. président tënkoon na ko bi muy wax ci affaire emploi des jeunes. Euh, ñu ngi woon si affaire justice relation avec les institutions peut-être ñu continuer sur cette lancée avec euh, la situation politique du pays. Euh, diggante nguur gi assemblée nationale. Ah, question yi jëm foofu am naa si ay ay question euh, monsieur le président euh, l'actualité politique mooy d'abord cette crise bi am ci diggante ce premier ministre ak assemblée nationale li jaaxal sénégalais rek mooy vote mutisme ñëpp a ngi naan waa président moom du wax du àtte xeex bi parce que en réalité bras de fer la woon boo xam ni eggoon na si niveau yoo xam ni ñu ngi doon xaar yow nga nga addu si lan moo waral nga nga maandu si Euh, ba wala bokk da nga waxtaan ak sa premier ministre ba xam ni moom mi ngi mënee combat boobu de manière ni ñu ko bëggee euh, wala bokk da jàpp ni say ñaari institution la rek da ngay toog euh, nga arbitrer au dernier moment. beneen question bi mooy sa relation ak sa premier ministre ñu bëri dañoo jàpp ni Ousmane Sonko il vous fait un peu de l'ombre loolu est-ce que lu ngeen déggoo la que ni yow nekk.